ñu daal di dikk euh, daal ci gis-gis gis-gis nag ñu ciy waxtaane lu waaju ci daaray Serigne du Kara yi nga xam ni jur na coow lu rëy ba am ci sax ñoo xam ni fii ñuy waxee ña nga ca Ndungusil euh, ña nga ca Rëbës ñu tëj leen euh, loolu nag la ñu fas yéene waxtaane lu ni mel lan moo ko ak lu ni lan moo ko mën a saafara ba doot fi amati wala tam buy am mu tegu ci yoon loolu la ñu fas yéene waxtaane ak Baba Lissé Ndiaye Baba Lissé nag éducateur spécialisé la ci mu nekk en service Euh, nek ci kurel gii di AEMO moom action éducation en milieu ouvert nek ci Guédiaway euh, Baba Lissé ñi ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ziar mbokk auditeur RFM yëpp. jërëjëf euh, dinañ ci ànd ak Alassane Seck moom mooy secrétaire général bu secrétaire plutôt exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains ñi ngi lay nuyu sëñ bi Seck. Fatou Ngagne Ndiaye maa tàmbalee waxtaan bi kon ak euh, Baba Lissa euh, Baba euh, li nga xam ni moom la ñu gis ba sax am na sax wax nga yow sa xam nañu ne sa kuréel gi ma nga nekk ci Géejawaay am na ci yenn centre de redressement yoo xam ne nee nañ mi ngi foofu lu ni mel yow ci sa gis-gis lan moo ko war a mën a indi ci am réew ak ndax ngëneel la ci am réew ak ndax it safaan bala lan nga ñu ci mën a wax. waaw damay njëkk di ñaawlu terme bi ñuy utiliser naan centre de redressement. Mhm. ndaxte ci réew mu mel ni Sénégal. Mhm. mu mu mu mu ratifier convention yi nga xam ne ñi ngi jëm ci wàllu protection de l'enfant. Mhm. yi nga xam ne mi ngi jëm également ci wàllu droits humains. waruñ ci mën a wax centre de redressement parce que terme la boo xam ne nii kenn utiliser tu ko. xëy na ci jamono yu njëkkee daan nañ ko utiliser. loo lan nga bëggoon ñu wax loo bëggoon ñu wax. parce que fi mu toll nii ñun dañoo yore ay façon centre yu bari. Mm-hmm. te centre yi ñu yore ñetti mbir lañ fay def. Mm-hmm. maanaam éducation rééducation ak réinsertion. ah d'accord. Mm-hmm. waaw loolu lañ fay def moo tax boo nee centre de redressement dañuy xaw a. tout à fait en professionnel. tout à fait. donc terme la boo xam ne nii bu ñu sañoon ñun en tant que professionnel. duñ te te centre yooyu euh, maanaam euh, ay centre reconnu la. par des centres qui dépendent de l' état même. parce que ministère de la justice la ñuy dépendre. Mm-hmm. ci direction de l' éducation surveillée et de la protection sociale. d' accord d' accord yéen yeneen xeeti centre yi nga xam ne mooy yi ñuy gis nag te nga xam ne bëgguloo ñu koy wax ay centre de redressement loolu lan nga jàpp ni moo koy indi lan nga jàpp ni moo ko mën a indi. waaw dafa am ñaari ñaari mbir yoo xam ne nii mën nañ koo jàngat li ko andi. Mhm. Euh, bi ci njëkk mooy xëy na nit ñi amuñ information pour xam les vrais centres yi nga xam ne ay professionnels ñoo fa nekk. ah wala centre yooyu nga xam ne ay professionnels ñoo fa nekk état bi jox ko moyens yi nga xam ne moo war a tax mu def liggéeyam na mu ware mhm. ba nga xam ne nit ki bu jógee dina mën a xalaat ne ah sama doom kat balaa ma koy yóbbu foo xam ne nii xëy na. conditions yi demewul noonu danañ ko yóbbu fii mhm. parce que ñun ci sunu biir liggéey lépp dañ ko teg ci yoon mhm. lépp lu ñuy def rek dafa am ay sart yoo xam ne ni moo ñuy tënk ba tax na ci suñu centre yooyu mhm. ndaw bu ñu yëkkati war la fa dugal fe moo fe moo xam ndaw bu nekk ci danger la ñu jël ko dugal ko fa wala ndaw bu def yoon tere ñu jël ko dugal ko fa wala waajuru ndaw bi ñëw ñaan li ñuy wax demande d' espace éducative bu boobaa ñun dañuy jël dossier bi yóbbul ko ki nga xam ne mooy président tribunal pour enfant mhm. kooku bu seytoo ba pare delloowaat ñu ko ne ñu defal leen enquête mhm. enquete ba ñuy def mooy enquête sociale de protection mhm. ba ñu defee enquête ba pare bu ñu gisee ne wax dëgg xale bi laaj na ñu yóbbu ko ci sant ñu wax ko président bi mu jël ndogal ndogal boobu ñu ngi ko tuddee ordonnance de garde provisoire

Alassane li nga xam ni gis nañu ko te te du du foofu rek jombul am na ci yeneen bërëb yoo xam ni kenn xamagu ko sax xëy mu nekk fii ci biir réew mi euh, léeg-léeg nga dégg ci yenn bërëb yoo xam ni euh, dañu naan ay ni ñu ni fa nit ña nekkee doy na waar. yooyu nga xam ni euh, ndax danga jàpp ni rek lu dëppoowul ak àq ak yelleefu doomu aadama la fa la yem wala am na leneen loo ci gis yow. waaw jërëjëf Pape Ngagne loolu nga wax nag léegi foofu nga laal mooy foofu en fait dafa am ñaari mbir li nga wax. dana jalgati àq ak yelleefu nit. Mm-hmm. ba pare am constant que état bi dafa dafa nasax foofu. Mm-hmm. dafa dafa lajj ndax loo xam ne am na ay at ñu ñuy wax fukki at ak juróom soo ko dégloo ni boobaak léegi mu ngi am Sénégal da ngay mel ni ko jombe parce que man mi nekk Sénégal yéen ñëpp ma xalaat ma leen ëpp ay at. Mm-hmm. mosuma dégg mosuma gis lu mel noonu. li ma dégg centre de redressement keroog ko soog a dégg pour la première fois. mu nekk loo xam ne lu doy waar lu kéemaane la wane rek ni état bi ba léegi mu ngi am laxité ambiant bu am Sénégal ci état bi war a surveiller loo xam ne moom mooy responsable suprême bi. bu war a am centre Sénégal bu ma a téye ay nit téye nit kooku dafa war a am autorisation officielle. or li ñu moom mooy amul. D'accord. mais mais mais mais Alassane. Hein? am na ci ñoo xam ay centre lañ ko tuddee mais am na ñoo xam ne ay daara lañ ko tuddee aussi bu ñu fàtte ni euh, euh, bare par exemple bu dee bu bu bu wàllu sëñ Modou Kara bi bu ñu fàtte itam euh, que moom ci ci ci ci ci famille bi mu bokk am na xam dañuy jox sen doom sëriñ bi. ba légui sax PAM gañ bokk yépp rek anormal ah, ah, ah, au moins illégalisé anormal xam nga daal dañ ko bàyyi mu prospéré ndax tradition la. Mm-hmm. mais suñ teeloon si yoon dëggantaan dara du ko war a ubbi muy école la daara mooy école coranique. Mm-hmm. war a am autorisation. Mm-hmm. rigueur bi ci am su ci amoon normalement yooyu ubbi école privée lay jàngale ah, di jàngale nasaraan lu may ubbee daara am autorisation état bi dafa am département bu ko war am contrôle saytu ko soo ko autorisation. mais état bi une fois encore foofu la na maanaam peut être gëmma ay bëtam ci yu bari bari ndax daal yi nekk Sénégal ay ay téeméeri téeméer la ay junni sax laa mën wax donc loolu lépp ci nasaxaayu état bi la ci liggéey bu ma liggéey ci rigueuram loolu moom manqué am ngañ moom mooy loo xam ne moom lañ constaté ñun au niveau des associations de droits de l'homme d' accord donc man daal su ma gisee yow responsabilité bi état bi nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko incombé carrément moom nga ko féetalee état d' abord entre les familles état d' abord ak les parents parents yi bëgg lu yomb ñu seen ay doom dénkaane ko loolu dafa nekk lu yomb loolu war a Sénégal Mm-hmm. dégg nga ne sa doom boo jur laa ko jur pare da nga ne koo xam ne ma ngi yóbbu ay milliers de kilomètres kooku dafa war a génn en Afrique te moo fi am Sénégal nag daf ci daf ci raw ndax Sénégal dafa am lu ñuy wax laxisme maanaam mas laa mën a arrangé d'accord loolu lépp dañ ko dépassé léegi nii d'accord même même bu même même jàpp nga ni même bu dee saay-saay la boo xam bu nekkul foofu mën na nekk ci biir dëkk bi di gaañ ñi wala di def yeneen euh, li itam lu ci mën a xew rek dañ ko war a teg ci yoon lépp ci yoon la war a nekk pam ngañ par définition état de droit mm-hmm. jeexal nay wax ok état de droit jeexal nay wax moom mooy lépp dafa war a jaar ci yoon mm-hmm. su rek. d' accord voilà d' accord di dinaa ñëwaat ci ci yow euh, alors Baba Lissa Ndiaye yow am na loo junju léegi nga ni ba ndax état bi matuwaay yi ak ni mu war a taxawee yenn euh, centre yi nga xam ni dañuy ci insertion sociale ak euh, benn taxawaay bi ndax loolu mën nga ci dikk ak ñun pour ñu xam mm, naka la leen état bi di naka la état di taxawee ci centre yooyu ak itam parents yi ndax am na participation ñu ciy def ndax mën nga ñu gën a gindi ci ci wàll boobu. waaw li may njëkk wax mooy sunu centre yi ñun fi mu toll nii dafa am côté boo xam ni dafa sooxe loola lool lool sax. Mhm. ndaxte bu ñuy xool prise en charge bi ci biir centre yooyu c'est vrai ay professionnels ñoo koy def mais dañu doyul parce que boo xoolee sax réewu Sénégal respecté. donc d'abord ressources ressources humaines am na problème. ressources humaines problème la. parce que réewu Sénégal. Mhm. respecté wul norme internationale bu ñu wax prise en charge des enfants dans ces centres là parce que norme internationale daf ne éducateur bu nekk juróom-ñaari xale nga war a suivre ci biir. mais boo demee ci centre di nga gis éducateur bu nekk presque plus de quarante enfants lay suivre. ce qui montre que ne ressources humaines yi doyul. et pourtant am nay diplômés yu toog di xaar depuis 2007 ba ni may wax ak yow nii. muy nekk loo xam ne nii lu doy waar la peut-être état bi jox ko cër ba mu ko waroon a jox. boo xoolee aussi ci moyens financiers yi parce que ñun. Euh, c'est vrai que amna progrès yu ci état bi def. parce que mhm. bu ñëk dañ ne woon euh, trois francs pour pour chaque enfant par jour. mais légui yok nañ ko sax ba légui dug nañ mille francs par enfant par jour. Mhm. légui tane mais ba légui doyul. Mhm. parce que condition yooyu xale yi war nekk pour mu gën pour ñu euh, mën leen toppatoo bu baaxa baaxa baax moy financier yi def na. bu ñu xolé ci walu bâtiment yi aussi capacité d'accueil yi def na. parce que centre yi nekkun ci région yëpp. comme ni service AEMO yi nekkee ci région quatorze régions du Sénégal centre yi noonu la ñu waroon nekkee ci quatorze régions du Sénégal. Mhm. parce que da ngay gis ku dëkk Kédougou ñu placé ko centre ba nekk Kaolack. Mhm. xoolal Kédougou Kaolack ni mu sore te bu ñëwee foofu sax euh, des fois dëkkin bi dafa am liggéey bi dafa am lu koy gàllankoor parce que mooy amul. centre gisoo rarement ngay gis centre bu am sax un véhicule de service. c'est dommage. ce que euh, veut dire que ne on travaille dans donc donc ressources yëpp am problème pour gérer centre yi. ressources yëpp am problème fi mu toll nii voilà. d' accord donc euh, Alassane euh, bu ñu la déggee ndegam centre yi nga xam ne dafa tegu ci yoon dafa jaar ci yoon état bi nekk ci tutelam ndegam yooyu moo am jafe-jafe yaakaar loo ni aussi yeneen loolu mën na jur yeneen centre yoo xam ni dinañ ci am yaakaar wax c'est vrai que mën na am centre privé comme ni mu wax ni autorisé. d'accord jaar ci yoon am état bi mu saytu ko contrôler ko di fa def inspection régulièrement mën a nekk. d'accord comme ni mu amee école privée catholique wala école privée lay. c'est vrai loolu lépp ci principe la am rigueur dans le suivi. ñu mhm. ko war a liggéey liggéey ko loolu la pour l'instant PAM rek moo ñàkk Sénégal. d'accord. D'accord. accord ah, euh, jërëjëf euh, Alassane sak ma gërëm la bu baax temps bi euh, moo ñu xaw a dab ñu fàttali moom mooy secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains Baba Lissé Ndiaye moom éducateur spécialisé la bu nekk en service ca AEMO moom mooy action éducation en milieu ouvert nekk ci Guédiawaay moom tam ñu ngi koy gërëm bu baax mu nekkoon xibaar yi digg njolloor gi ak radio Futur Média Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi Yacine Pouy nekkoon ci digital bi ci réalisation bi ngeen àndoon ci ak Pape Oumar Diaw ak elage Ndiogou Diène euh, Pam nga njaay moo nekkoon ci waxukaay bi euh, ci kanam di ngeen ànd ak euh, soxna Aminata Ndaw mu dikk ak yéen ci communiqué yi jërë ngeen jëf.